jërë ngeen jëf. jërëjëf door ak populaire dañ ma ko joxe mu ñëw ñun ci lu aju ci waa Parti démocratique Sénégal gi nga xam ne joxe nañ seen xalaat ci. dogal bu ñu fi jëloon jëm ci ay kilifa yoo xam ne dañ leen a tere ngir ñu génn réewum Sénégal bokk na ci Ousmane Ngom bokk na ci maître Madické Niang bokk na ki nga xamante ne ji moom mooy Samuel Sarr yéenekaay bi nañu nag euh, li tax euh, nguur gi dellu ci boobi le dogal euh, waa Parti démocratique Sénégal li ñu gis moo di njaaxum la gars yi def ba pare bëgg cee dellu gannaaw ndax dañ leen a tere ñu génn réew mi président Macky Sall di dem ci xew bu Alpha Condé woote woon ca Guinée jël Ousmane Ngom ànd ak moom te Ngom dañ ko doon tere mu génn réew mi ni ñu koy teree ci ñeneen journal bi nañu waa PDS nee nañu lii moo tax gars yi bi ñu ñibbisee ñu dellu gannaaw ci dogal boobee teggi ko ne ñoom ñett ñëpp di Samuel di Madické Niang ak Ousmane Ngom ku ci nekk mën ngaa dem doxi say soxla maanaam tojaanga bu ñu def la ba noppi bëgg ci dellu gannaaw la tribune nañu li ci am sax moo di la tribune nañu li xamante ne ji moom moo ci am mooy lu aju ci euh, dogal boobee donte sax ki nga xamante ne ji moo di euh, maître euh, Ousmane Ngom kon xam na fan la féete waaye ma di Niang ak Samuel Sarr ñoom xamaguñu kon fan la ñu féete loole ci tribune la ñu ko mën a jànge ñu dem ci l'observateur xool yi fa leneen lu aju ci waxtaan wi nga xamante ne ji l'observateur s'il vous plaît voilà Matar Ba mi nga xam ne xëy na séq waxtaan bu yaa ak ñii di journalistes observateurs yi wàllu politique nag moo gën a fës ci waxtaan yi mu di li aju ci référendum bi nee na moom gisu ci mbirum intérêt national nee na amul benn parti boo xamante ne ji war ngaa mën a gañe lii day élection yow dem yow dong faaw da ngay am ñeneen ñoo xam ne ñoom ngay lëngalul nee na kii di Macky Sall ku yaakaar ne dafa ngoy ci benn bokk yaakaar ba yaakaar ne bu ko bàyyee eh, du ko jig nee na yaa ngi nax sa bopp Macky Sall ngoyul ci benn bokk yaakaar maanaam accroché wu ci loolee eh, ngi ko jàngee ci yéenekaay bi d'Observateur Le Soleil xëy ak ñun ci lu aju ci li nga xamante ne jii mooy ndaje mañ doon amal ca CEDEAO mu di 48e euh, session ordinaire bu CEDEAO ci Abuja la sori nañu foofee njiitu réew mi Macky Sall ni mu doggoo ak xeerañ gi mu wane ak yiin ak yitte ji muy def ngir xeex wàllu terrorisme gars yi rafetlu nañ ko foofee bu baax a baax euh, ba euh, daal wax ko ko moom président moom président mu ngi ci xët mu njëkk Walfadjri lan moo ko fa indi yéenekaay bi di wal fajri nañu la mu bëggoon am na feu vert ba mu di eh, wallu voile intégral di xeetu muuru yooyu Macky Sall yéene moo doonoon ñu jële ko fi waaye dana woon nag da ciy déglu waa CEDEAO ndax da cay waxtaan ak ñoom journal bi nañu ca ndaje moomee ba mu fa sullee wax ja gaa ñi ànd nañ ci ak ñoom ne ñi bokk ci CEDEAO li ko wax moo di bépp col ko boo xam ne dafay tax du ñu xàmmee kan kan ñoom ànd nañu kon ci ñu tere ko Aïda Ndiongue mi ngi jëm ca fi nga xamante ne ji moo di ca tribunal enquête moo bind loolu enquête dina kay xëy ñu xamal ne lu ajo ci euh, layo jaxaay bi muy Aïda Ndiongue di Abdoul Aziz Tall di euh, maadu sàll ak Amadou Ndiaye talaata bii di ñëw danañu delluwaat jàkkaarloo ak juge bi ngir ñu àtte leen ci coowal détournement deniers publics toll ci euh, ñaar fukki milliards téeméeri milliards ak ñeenti téeméeri millions Grand Place nee nañu moom la nguurug Sénégal natt teg ko ci taabal ji ngir wàll microfinance Grand Place moo wax loolee journal bi nañu ci ndaje moo xam ne doon nañ ko amal naka démb bu jëm wàllu politique sectoriel ci affaire microfinance ak yooyee ca la ñu xamle lu ni mel xaalis boobee ñu ngi ko teg ci loxoy Moustapha Diop président moo def loolee ngir jàppee ko ci microfinance atum 2016 le témoigne nañu teg jël jam ñaaju bëgg ko defar ba mu mel ni panal président nee na eh, ci lu ad eh, matul kon at danañ fa defal benn hôtel 5 eh, étoiles benn complexe sportif boo xam ne terrain basket bu mucc ayib dana fa am ñu ne déeta waay benn pàkk bu ñu exposé ak benn marché leneen lool it danañ ko fa def yéene bi nañu bokk na ci benn centre foofee ci fi nga xamante ne ji moo di jam ñaajo tout cas xaalis ba cay dem le témoigné nee nañu waa Turquie ñoo ko cay dugal ku doon football Turquie ba jugee fa di Demba Ba xëy na di football ak waa stade yéen a kaay moom Demba Ba waxtaan wu yaa ak poñ yu bëri la fa sulli benn ci li mu xam le moo di ne équipe nationale bougé wul avancé wul euh, ni ñuy footballé bu ñu ko bàyyiwul tournoi yu mag yi duñ ca dem ba boog bu ñu fa demee premier tour ba la ñuy doon ñu toog dem ba ba ne lu baax la yéen équipe nationale ndax bëgg na bés gis Sadio Mané mu yëkkati coupe waaye nag yoon bi moom il ñu wàcc ko nekkuloon équipe nationale bu Sénégal kon jamono ji ma ngay football ca France ba tey Demba Bak li nga xam ne wax na ko mooy nee na Aliou Cissé déggootul ak cadre équipe bi ndax dafay wan ne man may boss wax leen ko clairement moo tax gaañi du ñu tegaat seen tànk ca sélection nationale ba Demba ba ne li dee dëgg sax mooy man Aliou Cissé su ma koy woo téléphone du ma jël hélas nañu jël direct info xooli fa oustaz Abou Bilal Koutia ci xët mu njëkk mi ma moom borom Kouthia Show yéenekaay bii di direct info nañu gannaaw raaye yi nga xam ne mu ngi koy wéy di jël amaan na beneen ndax tànn nañu ko ci l'Afrique de l'Ouest muy humoriste bi gën a aay moom Kouthia. macha allah macha allah vraiment kontaan nañu <laughs> Mamadou Mouhamed Ndiaye.